السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكل أرى الفسوس وهابسي حياكم الله مجلس واتيين في سلسلة بلارل تيربي لتقديس الأثقاف في الفكر الصوفي سن خادم نيان برم سبحانه وتعالى مسملة أرى لبطم لقل لبطم في أقيقن كدرجين بولم نتيان لينا خمني صاحب التقديس كاريكاتير نرين كتير به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 di ñëwaat ak yéen ci mottali jotaay bi nga xam ne ci lañ jóge woon nga xam ne dañ ko teggoon ci ñetti tomb waaye tomb yi gudd lool xam naa rek des na ko gàttal bu soobee borom bi tabaraka wa taala bu ëllëgee ndax dafa gudd lool ñu ne woon jotaay bi dañ koy xaaj ñetti xaaj xaaj bi njëkk mooy règlement bi nga xam ne moom la saaxibu taqdis Mouhamed Ahmed Lo teg ci téeréem bi page quarante cinq ne ni may doxee ci tasawuf mooy damay fe damay def lu ma fekk kenn koy askan ak tasawuf bootu sax mën naa bokk ci bootu sax ahlul tasawuf mën nañ ko caa génne ku demee ne abi ali ibn sina nga xam ne ahlu tasawuf dañ ko takfir ku demee ne al Ghazali ci téere boobu di al munqiz min al dalal wal musil ila dil ajri wa jalal wal wala ashamraxiya kuréel boobu doon askan ak tasawuf si qariya lañ takfir leen ci téere boobu tuddee sirul asrar wala al awliyaiya wala al xubbiya ay kuréel lañ yoo xam ne min askan ak tasawuf te bokkuñ jot Cheikh Abdul Qadir Jilani teel leen xam takfir leen wala al ibahiyya ben kuréel mu ñu askan ci tasawuf te bokku bokkuñ euh Abul Qasim qushairi teel leen xam takfir leen génn leen ci euh ca taalif teewu arisaar ci ngeen njëlbéen gi mo yara seen bir wala al al ñi ñi ñi wax ahlul wixda ñi gën waxee wujud waxdal wujud nak bil maana الصحيح بوقت وحدة الوجود دفع من هذا المعنى وحدة الوجود عند الفلاسفة أو وحدة الشهود wax dara shuhud nak mom la ahli tasawuf di wax moy tax safir ibn abdullah tos day wax ne bara na nga dégg ci karamu masayikh lo xam day xawndi wax dara wujur waye nak cheikhul islam neena cheikhul islam ci al ubudiyya neena lo loo ci waxi ahli tasawuf waxi gaaji tasawuf ya yu mag ña safir bin abdillah tos ak fadir ibn ya ak ñooñu du ñoom ñi am luñu wax lo xam ne daa xaw da xawalent xaw ndir wax dara wujur jàppal ni maana bu ci jul maanaa bu wér-wér la waye ko xamut cheikhul islam sax wax na lo ci al ubudiya ñi nga xamne ne ahlul wixid al ittihad biñ feñé ci seen jamono suyu di leen xam suyu di tey leen takfir ibn hajar al haythami nga xamne kana kaana suufiyan day leen takfir ibn hajar al haythami boko tak ibn hajar al asqalani ibn hajar al asqalani kaana fi tasawufun waaye des wax suufi la bi itlaq ibn hajar al haythami nak moy ki al sawaiq al masala ala ruusi rawafida كذلك طالب أي تيري بلا برد المنهاج القويم أكشف 40 الفتح المبين التيري بلا حديث من تكفير نيخ الحلولية شيخ عبد الوهاب الشعراني اثنيا آه، لنيز نيوم نيجي لن تكفير نيوم نور لكن صاحب التقريب سنو عندك لو لب خلوك من يدال كوي أسوان يتصوف بو أخي بيان وخلا مخي دماغي أسكين لجيم الفكر صوفي لو اللي رونا نكوي كون تيجي رأي ديك نيار التوم بنا كيجي نيار التوم بيشي آه، دس موي تروي دي nga xam ne moom la ñuy woowee ñii nga xam ne ñoom la ñuy wax adiya man nag maa leen di woowee adiya u salafiya bàyyi tur wa nga xam ne ñu ëpp ci nit ñi moom la leen woowee loolu nag euh, li am rin na man maa ko tànn waaye dañuy faral ñoom ñu bëri ci ñoom ñu bëri ba dañuy faral di daw dañuy faral di daw tur euh, tur wi nga xam ne moom la ñuy wax al wahabiya xam naa nag lii aju ci taqdis waaye daa nekk mm, tom boo xam ne bala ñoo jàll bala ñoo jàll fii dañ koy leeral xam naa nag euh, bu ñu paree tom ma mënees na koo mënees na koo yett euh, publier ko def ko defal ko titre boppam ndax aju ci taqdiis waaye li tax ñu tànn ko ci bunt bi nga xam ne euh, moom lañ toll bala ñu jàll da ci am solo ndax saaxibu taqdiis ji moom daa bokk ñi nga xam ne day jàpp ne dañ leen tooñ waaye lii du seeni wax maanaam maanaam woowuñ ko seen bopp muy tur yi di al ñu tànn kenn ci ñoom ku ñuy wax docteur Mouhamed Khalil al Harras kooku benn docteur la moo moo taarif téere bii téere bi nag mooy al ñu ngi ko tuddee al harakatul wahabiya téere la boo xam ne ci page soixante dix neuf la page maanaam téere la boo xam ne mi ngi toll ci juróom-ñaar fukki page juróom-ñaar fukki xët ak juróom-ñeent tuddee ko al harakatul wahabiya kim fi kim ci doon tontu ak di ko radd mooy ku ñuy wax docteur Mouhamed Bahi docteur Mouhamed Bahi dafa taal ab tuddee ko naqdul wahabiyya moom ci jëmmam moom yi nga xam ne daa bokk ci al ihya salafiyya mu taal ko tuddee ko al harakatul wahabiyya ngir leeral tànn ci lu mat ñaar fukki bërëb nga gis ñim nangoo ne ñun suñ daaw yi al wahabiyya ba bari nag ñoom ñu koy daw te du moom dong ñeneen ñu bëri dama dama ci tànn kii rek waaye ñu bëree bëri ñoom dañoo saxal ci tur wi ci jëmmam nit ñi ci jëmmam nekk na ni ñi leen ko tuddee waaye ñoom ñoo ko tuddee seen bopp loolu nag daal daa daa mat a leeral faaw kon ñi del ñi del ci seeni téere maanaam tur wi dama ci bëgg leeral lu am solo maanaam niñ ko nangoo tuddee ko seen bopp ngir naf benn benn i'tiraad genn benn subha subha boo xam ne xëy na ñenn ñi bu ñeen leen woowee alwahabiya dañoo wax ne yéen ko tuddee ngir lan yéen ñu ko tax ngir sikkal fekk na ñoo ko nangu moo tax ma ni tomb bi moom bu paree nañ ko nañ ko nañ ko nañ ko nañ ko nañ nañ ko nañ ko mën nañ ko mën nañ ko parrafé euh, mu nekk tomb boo xam ne mustaqil la doon tam bu la ko dugal ci ci biir silsil taqdis muy ndax loolu maanaam xurafiyatu alwahabiya ndax tur wii di alwahabiya nit ñi ñoo ko jekkee xaar ko wala ñoom jëm nangu nañ ko nangu nañ ko tudde seen bopp nga gis nangu nañ ko tudde seen bopp ci seen i téere doonte seen làmmiñ nag dañ koy dañ koy law waa ji nga xam ne mooy Mouhamed Ahmed Lo boo demee ci Hinaayatu Ta'wiilil Faaqid daa wax ne ginnaaw bi mu toxalee wax ji nga xam ne may waxee wax waxi docteur Qadaawi daa wax ni ñun ahli sunna day suñuy noon ñi nga xam ne dañ ñoo noonoo foo leen fekk dañuy wutal ay tur dañ ko tudd te ñun tudduñ ko te mooy lan ak dañuy wax ay taymiyuun wala ñu wax ay wahaabiyoon moom sax dafa wax na ko ci Hinaayatu Ta'wiilil Faaqid kadaalika sax Faalih Xawsaan ci ay téeram day wax ne képp kuy woo ci tawxiid dañ la woote ay wahaabiyoon ñun la ñu woowee ay wahaabiyoon léegi dañu xool ñi nga xam كان نيوم كان كان كيسيني شيوخ نخمني دني تاج في إيطاليا كي نخمن ما يدكتور محمد خليل هراس تعرف إن إيطاليا مي ما بجح من الحركة الوهابية تعرف إن بنت تودي وشاف خنوية من قيم يخمن نوني يا بابا نخمن ما الكافر الشافية بيخمن الإمام ابن قيم موقع تعرف دون كي ساجة دون كي رب بوك رحمه الله تعالى ابن قيم مع جاز قدره دون كي رب أهل السنة نم جاب المعتلة كذلك دون كي رب نم كي رب léegi-léegi mu àgg ci loo xam ne wax dëgg yàlla bu doon bu doon kenn la ma ne aw saaga la ndax ku demee ni xas léegi bu àgg xas dëgg ma naan yaa waaridal xalluut ñi nga xam ne bokkuñu ko mos li wax ne ñoom dañuy fekk ci ay maanaam dañuy fekk ay ay salte salte maanaam ay fonce te ji bu doon mën a mën ko fi am fonce sarxe na téere boobu yi tey nañ àgg ci téere bii nga xam ne benn téere la ci seen téere yi muy alxaafis wa kifa bind mooy wax sax mooy Muhammad Xalil Harras boo àggee ci page 14 nee na moom rek nañ ci ne suñu xaraka bi xaraka wahabi la tudd nee na ala nee na bi muy raddu docteur Mouhamed Bahji nee na summa yaba summa yabda alxadis an alwahabiya ka ka xarakatin diiniyatin islahiya fa yarjicu ususu dacwati alwahabiya ila salaati anwaacin alawal fi ma yattasil bil usul wa hiya alaqida wa huna yaqul nee na docteur day bi muy waxtaan suñu dacwa bi suñu dacwa bi lay wax de mu ne docteur docteur docteur docteur Mahamad Bahi mi ngi wax maanaam day maanaam nda jàppe ak daawatul wahabiya comme xaraka diiniya islahiya maam mu nekk benn mouvement boo xam ne daa jóg ngir ngir defar mouvement diine boo xam ne daa jóg ngir defar waaye foofu li ñu bëgg a leeral mooy xoolal daaw bi ni moom daaw bi ne moom daa moom daa jàpp ne daaw bi ci jëmmam ak daawatul wahabiya la tudd kon day gis ne kon rek leetar na ko ci euh, page quinze ci téeram boobu ma tuddee alxarakatul kon bu ci passe 17 fat neena mo waaj nga xamne ken ken ci adi ayu dafa may wax moo ne al alwahabiya tad'u ila sabil rabbiha bil bilxikmati walmawcidati alxasana hasana na sun da'u bi di wahabiya day wota jëm ci yàlla ci hikma ak ci ak ci yedd gu rafet kon fofu da nga gis ne moom kon tuddee na al alwahabiya kon loolu day dak day la manam day leral subhab ñi nga xamne dañuy wax ne ñenn ci ñoom ñi nga xam ne xëy na xamuñ xamuñ la nekk ci téere yi dañuy wax ne ah yéen yéen lañ ko tuddee ngir nang waaye ñun tuddee ko suñu bopp loolu wérut ñoom ñoo tuddee seen bopp nee na al nee na alxarakatu alwahabiya tadcu ila sabili rabbiha bilxikmati walmawcidati alxasana docteur nee na Mouhamed Khalil nee na suñu daaw bi ab daaw alxarakatu alwahabiya day woote jëme ci jëme ci yoonu boromam tabaraka wa taala في بدن باس باس زيد نانا ومن العجيب أنه في الوقت الذي يسلم فيه الدكتور ومن وراءه من القبوريين الحركة الوهابية وينعتون وينعتونها بالتشدد يلومها أنصار التوحيد الحق على على إسراف التسامح نانا لجنية مموي دكتور بميوسيكل من الحركة الوهابية تا ميني باي اي قبور يوني تي غيناوم كون فوب داغي كون داغي ديغي غيس غيس ني نتو ديفو موي الوهابيه كور بين لا كي باس دي جوبتاي مني ولو لم تقم الدعوة الوهابية بهدم القبور المشرفة وتشويتها تطبيقا لهذه المبادئ الإسلامية بعد أن مكن الله لها في أرض الحجاز لكان لا قدر الله حائنة آه، ولا خائنة لهذه المبادئ ولكان دعوة نذر وكلام فقط لأن شنو الدعوة بيد الوهابية بتخوتون تيم ما ببامني آه، فيك ما يدك ببامل كبر بعد وشريعة مرخون يندابك سنو جانجل فوين ما ببامل كون هاي جسنا كون فوفن جسنا لي مهمني suñu daawa bii di alwahabiya noonu la ko waxee kon foofu kon kon foofu ba tey di ko kon loolu day wax wax ñi nga xam ne dañu xam ne yéen ñu koy tuddee wala su dugg suñu bopp ñoom ñoo euh, kon te du ciy doong ñoom du du ñuy doong dama ci tànn kii rek damay bañ bi nga xam ne mooy qaacida bi def tasasi waaye ñu bëri la ñoom kon boobu kon boobu daa bokk ci bi nga xam ne waa ji def ñoom def na ñoom ay wahabiya lañ manam tur wi jëm ne dañ ko tam donte man nag moom sawaruma ma diko itlaq ci sen kaw ben ben bi ci passage na mu ne wal kalamu huna maa doctor fi taqfi fi taxdiir mubalaga allati yakmunu fiha aamilu firqa bayna al wahhabiyyin wa ghayr al muslimin بين الوهابيين وغير المسلمين فهل إذا قامت الوهابية بتنفيذ ما أمر به شرعي من هدم القبور وتثبيتها مسيانة لجانب التوحيد ودفاعا عن حماء المقدس يعتبر ذلك مبالغة منها تستحق عليها أن ترمى بالتشدد نينا دكتور نينا آه وادي نينا صلى في بنينا لدخش ديجند لدخش ديجند نون وهابية يأجلين لدخش ديجند كل البيد الوهابية تقرا كي ودخش ديجند وهابية جلني ما ينون وهابية دني دني ويا اللي اللي شري عديلة كم بامليك آه مبامي كل فهم ما لمن شغل ما يجيب جمونه teqale ko bi dox suñu daawa bi ak jul wahaabi ak jullit nga xam ne loolu day tekkee kon moom rek wetal bokk na ci bërëb yi nga xam ne moom rek wetal ci ne daawa bi ci moom daawa daawa wahaabi la kon loolu daa am benn subha bu ma ci bëgg a leeral rek kon boobu benn la kon loolu leeral na xool beneen mooy ci passe vingt et un ma ne fa limaasa tan fa limaasa tansibu lwaha fa limaasa tansibu lwahaabiya waxdaha ila ila mubaalaxa wa haadihi afaalu rasul sallallahu alayhi wa sallam wa afaalu xulafaai rachidin ala ma qadamna nee na waa ji may wax salafi may wax mu ne yaa docteur lam moo tax ngay askanale ñun wahaabiya yi ñun ñun dañuy dañu ëppal te te te li ñuy askanale yi ñu doon askanale moo ko yëg la moo tax nga nga yemal ko ci ci wahaabiya yi ñun suñ suñ daaw bi ab daawatul wahaabiya la moo tax nga yemal ko ci ab daawatul wahaabiya te te yemal ko feneen kon loolu gis nga dakk na tànn ci ne loolu ndax soxna bañ bu fekkee da ko bañ kon ñu dañoo dañoo fenqaloo ndax ñeen ñi dañ ko gërëm ba nangu ko ñeen ñi nanguwuñ ko ak fenqaloo gu rëy rëy la te ak fenqaloo bu amee ci mën xaj rek kon la muy teg mooy loolu baaxul ci passe 22 آه، نرى وعلى فرض أن الوهابية بالغ في ذلك فإنها مبالغة محمودة كان من نتيجتها استئصال شعفة الشرك واجتساس جذور وثنية من الجزيرة العربية نرى نعود نحن دعوة الدعوة الوهابية ما صار في ميوخ نعود نحن نحن دعوة الدعوة الوهابية دفع أبل شي ويل ديال الشريعة waye nak bu fe waye apple apple ko bax la ndax ñun ñun da ñun suñ da suñ daaw bi di ab daawatu wahabiya ëpp gi ëpp ëppal ku baax la ko nga gis na kon fofu tamit ba tay kon bokk ci bërëb bi nga xamni euh kasar na subaha bobu nga xamni dañ ko dañ ko faral di ci base 22 neena wala yajuz li ahad an yatluba min al alwahabiyati an tujamila aw tudahina la fi ma fi mawdu'i fi mawdu'i yata'allaq bi asli usul fi din wa huwa tawhid بل هي مستعدة حينئذ لأن تكون وحدها في طرف طرف والدنيا كلها في طرف حيث لا مجال لمساواة أو مجاملة نينا waa ji salafi bi nee na mooy Mouhamed Khalil Harras nee na dëgganut kenn muy ñaan muy ñaan alwahabiya pour pour pour muy masla ak yow ci pas-pas yu bon déedéet nee na ñun ak suñu pour bu ko ñep bàyyi won aduna bi buñ ko bàyyi won parena mom mu wote ci pass pass du masla kenn ku nekk ci mom ku nekk ci pass pass bu wutee mom da koy daj pare wut pour mu jaamale kenn ak manam mas la ak kenn kon loolu tamit kazaalika day tekki kon ñoom nangu nañ ko ci téere yi waaye ñoom ñu ko def beneen ci page 22 mu walakin wizra hadihi alfurqa لا يقع على الوهابية فإنها تدعو كل مسلم إلى الدخول في دين في دين في دين الله الحق كما يصوره القرآن الكريم والسنة المطهرة بعيدا عن كل سواء الانحراف والضلال واجينا شنو دعوة بالدعوة الوهابية دايو جل نيب لاي وو تي بومي لو تي دين الإسلام nee sun daa bi di al alwaxabiya jullit ñëpp lay wo pour ñu dugg ci ci diine l'islam ci kon loolu la muy tekki mooy rek tar nañ ci daa bi al da'wat al alwaxabiya la donc nak man nañ ko man nañ ko baña lànk ci man nañ ko lànk ci euh manam man nañ ko lànk kon boobu kooku kooku le kon loolu lay wedd shubha bobu ñuy wax ben benen moy ci page 25 mune wa amma watani wataniyatul ahya min ashaabi nufuq wa sultaan fala wujud laha bihamdillah fi dilal alwahabiya لأنها تحارب كل أشكال الوثنية لا فرق عندها بين وثنية الأحياء ووثنية الأموات ولهذا تعيش الدولة السعودية التي تدين بالوهابية في ظل ديمقراطية الحق لا يحس فيها المواطن بفرق, بفرق بين حاكم ومحكوم جاء مخرب gi nga xam ne moom la julli ñi nekk maam julli ñi ñoom ñi nga xam loola moom maanaam néew ma maanaam alhamdulilah yàlla muccal la ci addaawatul wahabiya maam daawaam bi lay wax addaawatul wahabiya nee na nee na addaawatul wahabiya day day maanaam daa jóg pour xeex lépp lu jaamu xërëm ak lépp lu bokkaale nee na nee na loolu moo tax addawlatu saudiya nee na diwlu wax wax diwlu fii mu ne wa li hada taisu dawlatu saudiya allati tadiinu bil wahabiya nee na loolu moo tax addawlatu saudiya bi nga xam ne ci ak wahaabiya mooy diineem maanaam ci ci ak wahaabiya lay jaamu yàlla wa lihaada taifu dawlatu saudiya allati tadiinu bilwahaabiya nee na lii moo tax ak dawlatu saudiya dawlatu saudiya bi nga xam ne ak wahaabiya lay jaamu yàlla maanaam moom lay diine woo ñoom dañoo nekk ci sécurité ndax lan dañu jug pour xeex ak jaamu xërëm yi nga xam ne moom la ñu nekk kon loolu itam ñoom reconnaître nañ loolu ci page 27 tubaab bi wanteet moom nee na moom saxal na nee na ba tey mi ngi confirmé ci ne daaw bi daaw daaw bi ci jëmmam mi ngi confirmé di reconnaître tur woowu ñu xam ne dañuy wax ne nit ñee ko kii wala ñoom reconnaître nañ ko ci téere yi ci page 29 mu ne al an wa qad faragna min at-ta'liq ala naqdi doctor li usus al-harakat al-wahhabiyya ba tey mu ne léegi nag pare nañ ci commentaire ci wax yi nga xam ne moom la docteur Mahamad Bahir doon wax ci suñu daaw bi ad-da'wat al-wahhabiyya kon lay dekk kon ñom nang manam nangu nañ tur wi benen ci ci pass bi def mu ne wa yadharu min hada anna ad docteur yaibu ala harakat al alwahabia taqlidaha li madhab muayyan nee na lan tax ñu ñi sikkal ci lam mo tax ñu ñi sikkal al harakat al alwahabia ci na ñom duñ tënkuñ ci madhhab euh lu may madhhab ahmad ibn hanbal lu may madhhab ahmad ibn hanbal في بارت الدعوة الوهابية لم تقم للاجتهاد نعم، في الفروع ولكنها قامت لتصحيح أصول nee شنو دعوه daaw الدعوه الوهابيه؟ ما daawatu wahabiyya maanaam foofu إن wax إن ci parce لم تقم للاجتهاد في الفروع ولكنها قامت لتصحيح الأصول فإن الفروع أمر مهين وقد أجمعت الأمة على جواز التقليد فيها لما لا يقدر على اجتهاد ولا ولا تتوفر لديه وسائله إذ لا يعقل أن نطلب من كل فرد في الأمة أن يكون مجتهدا نعم da suñu daaw bi di ak daawatul wahabiyya ñëwut ngir ittihaad ci furuu yi waaye daa taxaw ngir fas yeesal pas-pas yi kon foofu lañ koy tekkee bi gis nga daaw bi da ko tuddee ak daawatul wahabiyya ba tey kon loolu lay tekki ne kon reconnaître moom rek ñoom reconnaître nañ téere bii فعلا في باتران ترى من فأين إذن تلك الخصومة الذهبية ولا مذهبية في الحركة الوهابية وأين مظاهرها؟ لأن سنو حركة بيد الله حركة وهابية lan a tax ngeen ñun ci ñàkk ñàkk ñàkk ñàkk tënku ci madhab kon ba tey tuddee na ko noonu ci page 30 ba tey mu ne alxarak kon loolu day tekki eh, maanaam shubha bi nga xam ne dañ koy faral di saaro ci page 34 eh, nee na docteur daa bëgg daa bëgg bi di ad daawatul wahabiya mu nekk daaw ne day manam day continuer wala wala wala inna nee inna al haraka xoolal ci passe nee na inna haraka ruhabiya law qamat la qadar allah mitl hadi la lartakabat a'dama khata'in fi taarixiha wala jalabat ala nafsiha al niqmat alam al islami al nee kullah su suñu da'u bi suñu haraka bi al haraka al alwahabiya bu fekkone la taxaw rek bañ a def ittihaad wala way demee noonu kon boba day day day tab sunu si way waaye yàlla musalla ci ci yàlla musalla ad ad al wahabiya ci le malnomme. Comme xoolal ci paas 44 nee na naam inna alxarakatu alwahabiya lam tujaamil maa alshia fi takarub nee na naam suñu daaw bii di ak daat alwahabiya du masat maanaam du masat mujaamala ak shia maanaam loo ci ñor rek mooy gis nga ni mu tudde daaw bi daaw bi ak daaw alwahabiya la ko tudde Eh, ci page 46 mu ne inna alwahabiyin saasatun wa ulama arafa bi aqdar haula almawta nee na ñi nga xam su daaw bi ñi nga xam ne ñooy su ñooy suyux daaw bi mooy alwahabiyun nga xam ñoom lañ tuddee moo xam ña ca nekk ay ay politique nga xam ne ñoo nekk kilifa yi adduna ya ak ñi nga xam ne ñoo nekk kilifa yi diine ñoo gën a warmaal néew yi ñoo gën a warmaal ñi faatu waaye nag duñ bokkaar yàlla ngir ngeen ni ñu leen tuddee alwahabiyin امنا كي باسكال بميرة الدكتور محمد بهيري وهنا لماذا لماذا تكلف الدكتور لماذا تكلف الدكتور الوهابي وحدها بهذا العمل الضخم؟ نحن نكون ممدارك نجي ندعو به دعوه وهابيه كي باسكال هنا ان الحركه الوهابيه تشددت في تنفيذ ما ما يجب تنفيذه اردي آه، الناس ام تفتو لان في النعبي ادعت وهابيه ديتر الله تويل لبولو خمني mo xam nit ñi dañoo mer mo xam nit ñi dañoo gërëm loolu mi ngi ko ci page 45 ci page 60 mo ne fa inna da'watul wahabiyya tawfar la hadara ñun sun da'bi da'al da'wata hadariyya dafa dafa am civilisation maanaam li ma ci bëgg leer rek moy shubha bobu ñi wax motax ma bëgg leer ci ne li bi di tagi ne nit ñoo ñi ñoo leen ñoo leen ko tuddee rek waye ñam dañ ko rek netar ci jëmmam nangu nañu daaw bi tu bi tu as bu agge ci page 67 neena malikul wahabiyyin وما بينها لدى الحوارة من جبل بور عربي سعودي من كي خن موي بور وهابير ماي مالك موي بور كي كي سين دك يوي رايوم نينا كوكو دفا دفا دفا ديف لي من ليب غير ديك بي ام في فيلاج شيفيتا سو مانا مانا افانسي تي باس 69 من دكتور محمد كي دي تومال وهابي نافق نينا الدكتور يرمي الفكر الوهابي وليرمي الوهابيين اولا بالنفاق ثانيا بالرياء leen ñun ñun lay tuumaal ak naafiq ci page 69 mu ne fala ta'aruda bayna al-fikr al-wahabi wal muslimin loolu mi ngi ko wax ci page 69 kon da nga gis ne ni mu reconnaître ni suñu daaw bi daaw wahabi la ci page 70 ci page ci page 70 nee na ci pa ci page 70 nee na nee na summa xamalaha min ba'dihi al-umana alayha min abnaihi wa ahfadihi wa talamidatihi wa ansarihi wa kana sayfu saudi min waraihim آه، يشد أظهرهم وهم النموج ما يولى عجيب من الدكتور الذي يقسو على وهابية في نقده إلى حد الإقذاع نينا آه، بين خامي محمد بن عبد الحبيب في جوجي أك أي فتم جاسي سعود جاسي سعودية موي جاسي سعود نيوم نيو ديمبالي بورم خم خمي بند الدعوة في الوهابية من تخو نحن فوق ذلك كنا دعوة جمم دعوة وهابية في باس 78 نينا فإن الوهابية تربأ بنفسها وبأهلها عن مثل هذه الحياة نينا الوهابية جمم قرم دند بعض يخلال دي وحنا ونحن لا نسلم له أولا أن حظ الوهابية من الدين كحظ غيرها من البلاد ولا نسلم له ثانيا بأن الوهابية عن في عزة عن الحياة بل هي آخذ بكل أسباب الحياة نينا نينا شد عبيد أدعى الوهابية نكون داوان جناو أدنى وإن يقلوا خمنا لي تخمدوا أدنى جباحة بشيء جاب كن ببن لا بيان بما فإن الوهابية تربأ بنفسها وبأهلها عن مثل هذه الحياة يعني سندع بدي أدعت الوهابية جمن تناك دون خيط دون خيط دون جينا خلنا يو دو أمر لأن لو لو يكريه li ma ci ñor mooy da nga gis ni mu tuddee daaw bi ad al-wahabiyya ci passant bi nee lam takun lam takun al-wahabiyya fi yawmin min ayyam sun'atan wala ihtirafan nee na al-wahabiyya mu sa nekk ab métier waaye ab daawa la boo xam ne jëm ci yoon yàlla kon mbokk yi lii ab tomb la boo xam ne des ko war na leeral mooy subha bi nga xam ne dañ koy faral di tasaare mooy di wax ne loolu Mouhamed Ahmad da koy wax neen dañu waaye boo xoolee seen téye bu kasaare rek boo demee seen bu di Abdurul Saniya wala la ci wala la seen seen téye da nga gis na ta naaw tur bii muy addat wahabiya boo xoolee li ma fi man man nga ni naa fi lu mat ñaati ci bërëb ak ñett ci benn téere bii Mouhamed Khalil Khalil Rashi téere mu tuddee alxaqil wahabiya répéter ci man ñaar fukki bëriel ak juróom sax ëpp na ko yoo xam day répéter suñ suñ ak daawatu yi ci bokk la ñuy wax kon ginnaaw ñoom ñoo ko répéter eh, bi ci fa ci ci ak maanu kon dañuy wax ne képp ko ne maanaam subha boobu ñuy wax ne nitu bidaay ci jëmmam ñoo leen di koy tuumal loola loola wérut ndax ñoo ko répéter mbokk yi loolu ak tomb la boo xam ne ci bëggoon na ñaar balaa dara xew bu ko defee ñu ñëw ci tomb bu mujj bi nga xam ne mooy desoon ci jotaay bi mooy dugg ci benn xadis ci xadis yi nga xam ne mooy moom la ñuy daan jotaay bu soobee borom bi tabaraka taala kon mbokk yi kon loolu leer ba def naa ne mooy ñaareel tomb bi nga xam ne moom bëggoon nañ ci jaar euh, mooy wàllu laqab bi ñi leen woowee ginnaaw boo xamee nag moom ñoo ko reconnaître kenn ku ci nekk mën nga leen wooye waaye nag ñun moom al abdul faqir dafa gënal di leen woowee adiya u salafiya ixtiraadan li umurin kafira jiddan waaye nag daawa bi moom mu tur woowu nañ xam ne ñoom mi ngi seen téere ñoo ko reconnaître reconnaître seen téere yi loolu dafa cee bëggoon a dàq benn waxamu wala benn subha boo xam ne dañ koy tasaare muy subha boo xam ne ñu bari dañ koy wax mooy ci wàllu tur yaa ma ko tuddee waaye tuddee ma ko sama bopp dama ko tuddee ngir ngir si kenn tayib loolu ab ab ab njaar la woon tom bi nga xamne ci la jëm ci te ci lay daanelee ngir gàttal ko bu soobee borom bi tabaraka taala moy dañu dugg ci buntu bi nak moy buntu bi li ñu wax al wali wala fi rappal ko ba dem ba ko wàlliw li ñu wax wàlliw wàlliyu alwali ta borom bi tabaraka taala tuddu ko ci al qur'an lu bare bare bare ala inna awliya allah la khawfun alayhim wa lahum yaxzanun allah waliyu alladina amanu yukhrijuhum min adh adulumati ila an-nur والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون آه، يا لتدوك القرآن في أي آية بربي شيخ الإسلام في الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان صار هناك أي آية بري بري لجلكم بور حديث هو اللي كيف تسكي دوك خمنا نق مناقشة يدين يب تولك الولاية ولو ميلا نقول نن نن نقول أهل السنة جماعة جيسي نن نن نقول أهل السنة جماعة جيسي fénqaloo naak ni yi nga xam ne ñooy teqale ahlu sunna ak tasawuf doon rek mën leen teqale waaye dañ koy waxee noonu ndax ñoom dañ koy teqale ndax ni ko gisee comme ni ma ko leeralee sànq ndax ko salaf ni ko salaf gisee loolu mooy ci wàllu alwali dañ ci dañ ci dugg see tànn ci leen rek mu doy bis ñu bàyyi ko ba ëllëg ba beneen beneen jotee bu sooy borom taala ba tey dañoo nekk ci mabxasi tanaqubaat mooy ay finqaru li ñuy contradictoire saxal loo xam ne da nga koy weddoo te du ko yëg mabxas tanaqud dana bëri lool ci dana bëri lool ci ci bi maanaam leeral ay finqaru ay tanaqudaat dana bëri lool ci radd bi lu tax mooy moom daa daa wax wax am solo wax joo xam ne xëy na moo ko dugal wax jooju mu wax mooy képp koo xam ne da ngaa finqaru da ngaa wax wax joo xam ne ginnaaw bi da ngaa wax joo xam ne day weddi wax ju njëkk ci wala wax jum wax ji nga mujjee wax buñ ko boolee wax ji njëkk ji mënuñoo dajee dañuy fénqaloo bee jaar na bee jaar na li day mujj doon lu ñuy wax an naqidaan mooy wax na loolu fu mu amee ci mën xëj mën xëj boobu jubut loolu wax na ko ci téeréem bi wax na ko it ci beneen téeréem loolu li mu koy wax daa bëri la ibaar la boo xam ne da koy tar lu bëree bëri gannaaw wax loolu waxeem la wax ci la ñu sukkandiku nag ci saxal lu bëri ci ay tanaaxu daal moo tax man moo tax tomb bii nga xam ne ci la ñuy daanale daanaka day jëm ci walu li ñu wax ak tanaqud tanaqud dong la muy fenqaloo fenqaloo gu reey euh gundi bi nga xamni ci lañu ubbi nak waji ji da ko ubbi mooy borom sahibu taqrir da ko ubbi ci pass 43 wala pass 48 jëm li jëm ak suuf nga xam ne boo àggee day wax ne hada albaab macquudun asaasan لاستطلاع عقيدة المتصوفة في الأشخاص الأحياء المقدسين عندهم ومحاولة معرفة إلى أي مدى وصل هذا التقديس في تصورهم وفكرهم day wax ne bunt bi dama ko ubbi ngir jagleel ko lëñ ba pas-pas waa tasawuf ci taqdis ci ñu nit ñi leerlu na leerloon naa ba taqdis ci ne taqdis dafa am ñeenti maanen taqdis day li ma ko leer day firi day firi ak ci maana ak ci tadxir ñett na ci mbindeef ñe ñett yooyu dagan na ñeenteel maana bi mooy ak tanzih boobu rek borom lañ ko war a defar ba di ko war a leeral sinon rek taqdis ko du yàlla dagan na waye nak taqlid nag ban ban taqlid ngay wax ndax taqlid maana tanjih ngay wax wala dit ko des ko war a mo tax ma ci doon bàyyi xel taqlid asxaas taqlid doon ara dagal na waye nak bi maaniha amma al asalaasa ama rabi fa fa taqlid bi daganut mu ne bunt bi dama ko fas ngir leral ci ahlu tasawuf taqlid yi ñuy taqlid seen gaañ ak leral gañ yi fan lañ ag manam fiñu ag ci taqlid nit ñi ba lo sa day tàmbalee feeñ ci ñom léegi buntu boobu la buntu boobu la ubbi mooy buntu bi nga xam ne ci la ñuy dooree muy buntu boo xam ne bi mu ko ubbee daa indi benn ubbi tuddee ko al matlab benn matlab benn buntu tuddee ko mafhumul awliya ilahi taala mooy lan mooy wàllu loolu nag benn subha boo xam ne dañ koy tasaa mooy lan mooy wàllu ci alquran sunna moom daa teel a wax ne wàlliwu ci alquran sunna ak ci salaf saalih bokk tax wàllu tasawuf ahlu tasawuf wàllu bi ñuy wax boobu nekku ci alquran nekku sunna wàllu la boo xam ne dañ ko fabriqué ñoom moo tax dañuy almatlab al awal mafhum aw la tabatta ala fi kitab sunna la mooy wàlliw mu taxaar ci cheikh lam cheikhul lam ci loolu mu taarif al wilaya ci loolu mu taarif ci al wilaya ci téeréem boobu di al furqaan al furqaan li cheikh waaji li mu ci taxal daa bëri lool ak ci ibnu rajab ci jaami ulum al xikam ci noonu nag ci la waaji indeel aay bi nga xam taba eh, la borom di ne ala inna awliya allahi la xawfun alayhim wala hum am nu mu ko firee def ci tuuti ay jàngat ak ay commentaire nam mujje mooy lan mooy ne daal wàlliwu daal ni eh, ko alquran maanaam nam mujje mooy lan eh, wàlliw weesu wut nga xam ne moom la ko yonent alayhi salaam leer la ci xadisul qudsi xam ne xadis qudsi boobu nga xam ne abi hurayra moo ko nettali jël ko ci yonent alayhi salaam mi ngi ci buxaari mooy xadis boo xam ne naaj ñëw dinaa ko jàng mooy man aada li waliyan faqad aadantuhu bil xarbi xadis bii des des na ci taxaw des na ci des na ci yàgg lool ndax des na ko sarxe leeral la ci aju leeral it ni mu nekkee aw lay wu dëgër dëgër nga xam ne lay la ci usul yi bëree bëri yi nga xam ne daal mooy usul usulu suuf yi des na ko leeral kon ci xadis bii nga xam ne ci lañ fasikkee ne tàmbale tey jii ci la defee moom ci la defee ci la defee ci lañ fasikkee ne taxaw tey jii xadis bi nag gis na ko sarxe leeral ko leeral li ci borom xam yi déggee leeral li ci mën a jëriñoo ci usul tasawuf waaye leeral it finqaloo gu rëy ak tanaqudaar gi ci wàji def ak leeral it li ci wàji bàyyi te mu nekk ci xadis bala ñu ñëw ci loolu dañuy dañuy njëkk maanaam dañuy dañuy taxaw benn mbir dañuy am lu ñu leeral fii lu am solo mooy waaji ci page cinquante bi mu taarif la mooy wali daa toxale ci benn ashari bu mag te mooy al imam abi suleyman al xataabi أبي سليمان الخطابي رحمه الله تعالى كتير بمسلي ما علم السنن خمنا شرح سنن أبي داوود داود شرح الخطابي ما كنت نيجي كشرح سنن أبي داوود رحمه الله تعالى تعرف أي تيري بره بركي حديث بدمن أعلم الحديث ولا غريب الحديث أكيد ولكن ضم الكلام الخطابي أبي سليمان الخطابي رحمه الله تعالى كان أشعريا سوال القصص أشعري مغلور موك موك محمد أحمد لبوك ني بطس ا موم سوال القصص سي بونتو بطس سي بونتو عقائد موم كان أشعريا أشعري لو موم الخطابي تبغي سخال لو بري بري دا بوكون سي ني گم ني بي دا رفم ني دين موم موم الخطابي بو دي بي عالم السنن بي مي شرح كل بدعه ضلاله ا دا كون بوكو تا واجي دارا الخطابي اشعري لون تفطس تواجني أنا أشعري أي توج لنتي توج جهميه ما صاحب تقديس محمد رحمه الله كتير ويانا الفاصل نينا الأشاعرة أي توج لنتي توج جهميه لو نكو سنجل بنتي نينا الأشاعرة من أذنى من, من أذنى بالجهمية نينا بني الجهمية أشاعر رجي بكالي كم جناو الجهمية صلاة أصل صحيح نينا كم لين تكفير te achaira yi ay cuuj lañ ci cuuj jahmiya yi te alxataab ci al achair la bokk ngi dëgër loolu ba xam daf di toxale ci moom loolu day waar la euh, loolu ab taxaw seetlu la bala ñëw ci xadis beneen bi mooy keneen kum doxalaat njëkk ñëw ci xadis mooy kii nga xam ne mooy euh, al imam al qurtubi rahimahullahu taala nga xam ci walu fasu ashari la donte nak amna ay baat yi ndaw yu ñu gis ci mom waye li ëpp ci moom liñ doxale moom ashari la woon waa ji nag dafa wax ni al ash'ira ñuy tuuji jahmiya ci tuuji jahmiya yoy nak ku ne al jahmiya may kuréel bu nga xamne ñam lay askana jahmi ñu safwaan abi muhris ar-ratibi nga xam ne boroo xam yu ko takfir boroo xam yu ko al imam al imam abi hanifa don waxe دا ابي حد دا سامخ ني اتانا من المشرق ني ابن عساكر فرت لي كتاب يلك في المفتري اتانا رؤيان خبيثان مقاتل المشبه وجهم معطل جهم صفوان نكون كو خامني اي فاصو بون بون لا داجي لون بوكو نتي فاصو يم گمون ماي گمني سوار داي جيخ نكو ابن القيم دي گمي مومي كتاب دي وساخلي كي شفاء العليل بوكو نتي اي فاصو مومي آه، taatil melokaane ba mu taala lépp lu yàlla saxla bof mu dàqal ko ko ci anam gu bon a bon ni ko xasaali di waxee ci qawaidul itiqa kii yenn téere bi dama def naa ni iljaamul awaam la téerutuma am na fu mu koy waxee kooku nga xam ne mooy aljahmi mu ne al ashaari dañoo bokk ci cuuy jahmi ya mu mu ñëw nag fekk kenn ci al ashaari muy abi suleyman xasaab mu ñëw taxale ci moom ci bundu wàll yi léegi loolu ab jaarukaay la bu ko defee nag nañ ñëw ci jëm xadis bi آه، حديث بي موي حديث بيغا خامني موم لا بخاري نتالي موي الحديث القدسي دي حديث بسيو ني بار نتاليكو تي اي رواي بار بار دونت لفظ بيغا خامني مو تي غيرفي بخاري رك مكو نتالي ا موي حديث بو خامني من غن دا تيتال ادعياء السلفيه ني غن كو خامي تي حديث ولي شيخ الاسلام تيميه نينا حديث بي اشرف حديث في ذكر الاولياء mbooleem xadis bu ñu wax ci wàllu wàllu yàlla yi xadis bi moo ci gën a tedd Cheikhullah wax na loolu ne ko Ibn Rajab di toxale ci jaami ulum wal xikam mooy xadis Abi Hurayra boobu nga xam ne sax na sax ci saxiixul Buxaari al-Imaam Buxaari natali ko abi muy xadis qudsi muy xadis boo xam ne yàlla moo cay wax dafa am lu ñuy wax alxadisu nabawi am lu ñuy wax alxadisu qudsi alxadisu nabawi mooy loo xam ne yi nga moo koy wax maanaa bi yàlla moo ko wax yu waaye yi nga xam ne moom moom la ibn Atam di jëfandikoo pour àggal ko ci mbindeef yi ay baati boppam la waaye maanaam moom yàlla moo ko wax yu loolu ñuy wax alxadisu nabawi alxadisul qudsi nag mooy xadis boo xam ne yàlla jëma moo cay wax borom xam-xam def nañ ci ay leeral lan moo dox digganteem ak alquran am na am na différence mooy alquran dañ koy dañ koy jaamu borom bi tabaraka wa taala ci julli te xadisul qudsi di su ko jaamu yàlla di su ko di su ko jullee alquran daa ijaaz daa lotuloo mbindeef yëpp yàlla dafa taxaddi mbindeef ci alxaaf alquran yi تتحدي جو يال تحدي من ديفيد ااا أمك الحديث القدسي أم من يني الإمام أحمد القرآن دعنا نجايكو ما مدعون نجايكو الحديث القدسي كتير يمكن بندعنا نجاي نجايكو كتير يوي أم يقدر فروق يوي أي فروق خلافية وعلى الحديث القدسي دال أم بين ما الحد القرآن متواتر لا الحديث القدسي أم في متواتر أم في يوم تموضوع له أم في يوم موضوع له دمني xalaqa allahu nafsahu wal iyaasu billah muy xadis yoo xam ni waaye alxadis alqudsi buñ ko déggee buñ ko déggee mbokk yi mooy xadis boo xam ne suñu borom ta taala moo moo tay wax yéen daal salaam mooy wax ne yàlla nee na mooy taxal kon xadis bi xadis bu wér buxaari rettali ko muy xadis qudsi xadis bi lan lay wax xadis bi day wax ne man aada li waliyan xadis bi nag bala ma bala ma bala ma continuer mooy lee daanaka xadis boo xam ne daanaka daa tiital adiya u salafiya buñ ko mënoon tadci liñ ko tadci waaye mënuñ ko ndax waa nekk aljaamiu saxiix moo tax moo tax kenn ci ñoom kenn ci abi asar fay ku ñuy wax Salih ibni Muhammad al-Luhaydaan moom faatu na bu yàggut Salih al-Luhaydaan ci taas na téere bi taas na téere boo xam ne da ko tuddee Sharh an-Nawawiya wala Sharh al-Arba'idiya boo ta àggee day wax ne xadis bii day day day toxalee benn waay day toxalee ci kenn ci ruwaat yi day ne xadis bii day bu ko Buxaari génnewutoon dana wax lu ci wicc maanaam danañ ko tadciif danañ seen maawil tadif yooyu nga xam dañ koy jël léegi-léegi danañ ko teg ci yoon ni ko albani defee rahimahullahu taala danañ ko def dana xadis bii day but lawla haybatul jamia maanaam la daat naa bu taxutoo nag aljamiu saxiix di saxiix buxaari mooy aljamiu saxiix bu taxutoo nag génn gi buxaari génn moom danañ ci xeel pexe danañ ci seet pexe da xadis la boo xam ne arrangé wu leen maanaam daa daa jaay af lu yu bëree bëri ci ñoom xadis mooy xadis boobu nga xam ne abi hurayra day wax ne yéen asaab nee na yéen mooy wax ne yàlla nee na man aada li waliyan faqad aadantuhu bi xarb wa ma taqaraba ilaya abdi bi cheyin ahabu ilaya mima aftaratuhu alayh wa ma yazaalu abdi yataqarabu ilaya binnawaafil xata uxibbah fa ida ahbabtuhu kuntu samcahu alladi yasmacu bihi wa basarahu alladi yabsiru bihi wa yadahu alladi yabtashu biha wa rijlahu alladi yamshi biha wala in saalani la uctiyannah wala in istacaazani la uciidanna loo may xadis yàlla yàlla yàlla borom bi subhanahu wa moo wax ni xal yaa sax daan ni képp ku noonoo sama wàlliw képp koo xam ne dangaa noonoo sama wàlliw kooku déclare naa déclare naa la guerre loolu alimam ibnu ibnu daqiq al iid dinaa ko leeral bi ñuy sarx xadis bi bi mu gisee day wax ne kon nit ñi nañ moytu nañ moytu di merlo wàlliw yàlla yi wala di teg seen der lu ñaaw wala di leen ni ko ñu bari ci adi asafee di waxee wa yàlla da ci ci ne wa ma taqaraba ilayya abdi bi shay'in a ilayya mimma iftaradtu alayhi jaam bi lim may jege-jegeloo amul dara lu ma ci gën a bëgg li ma fartaati moom li fartaati jaam bi jaam bi bi may jaamoo ngir jege ma xeet yi may jaamoo yëpp la la ma fartaati moom la ci gën a bëgg mu teg ci ne may jaam bi yàlla teg ci ne jaam du dañ di ma jege-jegelu ci ay naafila maanaam jaam bi du dañ jéem a jege di naafile maanaam di di jéem di jéem a jege boor moom di ma jéem a jege di naafila moo xam naafilu sola wala naafilu zaka wala naafilu sadaqa wala di naafila di jaam yàlla di googu jaam yàlla ba nawi mu jëmay dama koy bëgg su ma ko bëggee nag ah résultat bi mooy lan boobaa may nekk nopp nopp yu muy yu muy dégg maanaam yàlla day wax ni su ma demee ba bëgg jaam bi jaam bi jaam bi su ma ko bëggee maanaam bu su su demee ba man maay nekk nopp yu dégg mbokk loolu ci laa fas kenn taxaw euh, ci fi ngeen koy bu def maay nekk bët yi muy gisee maay nekk it loxo loxo yi muy ñëbe maay nekk tànk yi muy doxe te it dana toll xam ne su saa bu ma ma jox waaye saa bu musul ci musul ko lii mooy xadis bi ñi ngeen ko xam ci xadisul wilaaya ñeen ñeen di ko wax xadisu wali kon xadis bi daal la booy mbir yu bëri des na ko leeral yeneen jotaay waaye tey ji liñ ci soxla rek mooy xadis bi لتملكي فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده الذي يبطش بها ورجله الذي يمشي بها ولئن سأل ولئن سأل لأعطينه ولئن استعاذ لأعيذنه ما أنا موقف جاء أموي ننلقى صاحب التقصد الفري بغير فين لي تخاو موي ا ديغ ني خا نم لوغو xam nga borom bi daa wax ne fa ida ahbabtuhu kuntu samaahu allazi yasmau bihi nee nit ki bu nekkee ab wàlliw man man maay doon bu nekkee ab wàlliw boo xam dem naa ba ma bëgg ko man maay doon nopp ya dégg xoolal kuntu samaahu man maay nekk nopp ya dégg man loolu ku ne xam ne ne zahiru lafdi lafd bi zahir bi maanaam xaqiqatu lafdi la muy tekki mooy subhanallah wal iyaasu billah la mooy suñu borom mooy mujj nekk mooy mujj nekk dégg te ku ñu xam ne ne loolu xam nga loolu mooy loolu loolu la yàlla wax léegi nag fii saaxibu ñaar ñaari ñaar la mën a am benn da maanaam da koy wi ñaar daal ni déedéet jublu ci yàlla mooy nekk jëmmi nopp bi daa koy jox meneen maanaan bu bokk teg lafz bi boobaa tabbi na ci fenqloo maanaam day tab ci tanaaqul ndax moom daraan wet daa weddi ne bala ma bala ma ñitiloo sax dinaa leeral lan mooy tawil ak leeral tuuti moom lan mooy mawqifu mawqifu docteur ci tawil pour ñu pour ñu comprendre dëgg-dëgg seen xoloo gëree gi mu tàbbi fii euh, tawil ni ko alimam Xasaali taarif ci al-Mustafa mooy fekk baat boo xam ne dafa jantal ay maana ni bay am maana boo xam ne moo ciy zahir wala moo ciy xaqiqa euh, nga am dalil buy tekkee ne جبنا جمالين معنى بوقتك معنى حق شبي نجدق من المعنى بوخان مولا جوخ المرجوح ما يصرف اللفظي عن المعنى الراجح الى المرجوح بدليل يقارنه ما يقول الامام الغزالي تعريفتي المصفى دون تيرا لفظ تعريف يبقى لفظ ما يغلبه آه كذلك الابدي كالاحكام من لغه تعريف ان لور موي لور موي لور موي تاويل ماي ويلا واخا كوني يوغني بوغ توخ لي ليلا بوغ لولو الأشاعرة كل أحد من دابريت من يوخ المؤولة من يوخ مجي تأويل أه... نكو الإمام ابن حزم تعريفه كألف صل ما يغفيك أبلظه داركو يصرف جيركو معنى ذهبي يمكن معنى حقيقي يمكن جيركو معنى حقيقي يمكن معنى مجازي نقول الإمام الرازي تعريفه كذلك ابن رشد فصل المخال ابن رشد ولو كان فيلسوفا آه نقول تعريف ابن لول لول لول ما يتأويل man exemple yàlla yàlla ne man wàllu bi bu nekkee wàllu man maay doon nopp yi man maay doon nopp yi dégg déggee maay doon dégg muy dé maay doon dégg muy déggee yow nga ne déedéet jëm yàlla ji moom du doon ab dégg ndax boo yàlla day nekk mbindeef wala yàlla day wàcc ci ab mbindeefam kon boobaa kenn ku nekk mën naa wax man sama dégg gi man képp ku nekk wàllu mën naa wax ne sama dégg gi mooy yàlla wala iyaas billah ku ne xam ne loolu des ko nangu te am te lu mën di am nag yàlla loolu wax nga daa koy wëlbati rek daal ne yàlla kon yàlla wax mooy xëy na leneen waaye du waaye du sahih loolu mooy tawil ndax saxibu taqlid mom da bok ci ñi nangu tawil wal nangu ko ba ag ci téere bu jaay tawil fasid nee na neena at tawil na aslu الفاسد أصل neena tawil bu تأويل ci pas 405 manam 45 نانا التأويل متسرب إلى الجهمية من المصادر اليهودية والنصرانية نانا لي تأويل يلا وخ أبات نجا جوخ من المعنى يوي يوي jahmiya yi ñu ngi ko jëlee ca yahud yi ak nasaraan yi moom daa jàpp ne tawil ci nasaraan yi la jóge benn euh, tawil yi nga xam ne ñoom la ahlu sunna def sax ci tawil lu mel ni yadu euh, al itiyaan yàlla day ñëw ngeen wajaa rabbuka wajaa amruhu mu ne loola tawilun baatil ibtaalun li sharia kooku beneen la te passant mu ne jullit bi daa war mu gëm ne li ñuy wax majaaz baat boo xam ne yàlla da koy wax te jubli ci leneen lu bokk tak maanaa xaq bi amul ci alxuraan mais daa war julli bi gëm ko ci paas quatre-vingt-douze ci aljana te il faas mu ne gëm ne alxuraan ji am na lu wax majaas mooy baat boo xam ne yàlla da koy wax ci zahir bi nii te mooy li am fii yàlla li mu wax fii ne man maay nekk nopp yi muy dégg maay nekk dégg nekk bët yi muy gisee di nekk nopp yi muy déggee maay nekk loxo ya ku ne xam ne loolu automatiquement da ko faaw nga tawir ko maanaam doo jóg faaw nga ne leneen la jublu waaye lu waaye du li du lii may wax ni du li ci kaw gi moom waaye waa ji ne ne tawil képp ko wax ne alquran wala yiddu alayhi salaam dana wax dana wax benn baat te baat bu mu jublu ci leneen lu bokkut ak ni ko waxee kooku loola musiba mu réer kon lii mooy mawqifam lii mooy waa ji lii mooy mawqifam ci tawil léegi nañ xool ba xam nan lay def ci xadis bii bii noonu maanaam noonu mu dàqee sarfu la an zahirihi wala jël ab baat yenn ko ci majaas ndax koy xamni li ci ay majaasaat mo fi am ni ko haythami haythami ci al fath al mubin sharh al 40 day wax ni yeb ay majaas la ta effectivement lolu werna waye da ngay xol ndax nonu mo ndax wax yi wax ndax lim wax manam ndax pas-pas bim am ak yoon bi mu doxee ci tawilil fas jinaay tawilil fasid ci ne ab baat bépp baat dañ ko wara a bàyyi dañ ko wara a bàyyi lam nekk waye desu ko tawil ñuko yàlla waxe dal non la li ñu wax majaas ma yàlla wax ben baat jubli ci leen loolu amut ndax ndax non la doxé dafa gis ne dañuy gis na rijafen xolo xolal ni bimu ko sharh da dem fekk da dem fekk ko xamne bimu sharh hadith bi moy ibn rajab abd alrahman abi faraj ibn rajab alhanbali rahimahullah ci téré ba bu tuddee jaami ulum wa hikam fi sharh 50 hadith min jaami alkalim da sharx hadith bi nga xamne ibn rajab bimu ko sharh da ko sharh sharh bu fees dal ak ay ta'wilat mom nak ngir mu leral maana hadith bi fa wadi am problème ndax mom da xas ba saxal ni borom taala bu waxe wali yu asalan wax yàlla bu waxe dara nañ koy bàyyi noonu kenn du ko kon da ko wiñaar mom mom de bañ sa am amna fo xam ne sax day wax ñi nga xam dañuy tawil bëgguñ dara lu may nit ñi bàyyi leen a teeree bi ñi def ñi def seen ñawteef non la ko waxee noonu la ko waxee ci al nettali al jaaxis ci al euh nettal ci ñu bare bare bare kon ginnaaw moom day bañ taawil faaw am problème ci li yàlla wax ne kuntu sam'ahu lazi yasma'u bihi man maay nekk nopp yi muy déggee ñaari mu mën a am benn benn day kon ne di bañ taawil mu yen mu yen mu yen mu yen lafz bi ci zahir bi te bu ko yeneen ci lafz zahir boobaa li muy mooy yàlla mooy nekk jëmi nopp yi wala mu nekk jëmi dégg yàlla jëmam mooy nekk ba di bay gisee yàlla mooy nekk sama loxo bi carrément yàlla mooy nekk samay tànk wal iyaasu billah loolu parce que bon bon la loolu ñu al ittihaadiya loolu ñu al ittihaad xadis bi ñi gëm al ittihaad mooy lii bi yàlla la mooy jëmmi yàlla ji loolu mooy pas-pas bon ibnu xay al haysami boo demee ci cheikh al arbain day wax ni xadis bi ñi ci jàppoon muy al ittihaadiya di wax ne ñoom ci jëmmam ñooy yàlla ndax gannaaw yàlla mooy mujj doon seen tii xam nga loo mooy saaxir bi ñaar yi mooy moo koy war moom moom saaxibu taqrir gannaawam day bañ tawil ñaari moom day bañ sarfu lafdi an zahiri ñaari moo ko benn mu bàyyi ko ci zahir bi boo ko bàyyi zahir bi nag noonu lay firi mooy jëmm yàlla mooy nekk sa tànk yi xanaa ne yow képp ku nekk wàllu rek yàlla mooy sa tànk yi sa tànk yi yàlla wala iyaasu billah te loolu ku ne xam ne ne kéefar gu bon a bon la sax muy al ittihaadiya al imam Suyuti nee na kéefar gu bon a bon la kazalika si Abdullah Shaari nee na kéefar gu bon a bon la al Qushayri nee na kéefar gu bon a bon la ñëpp du du alkasub doomu ñëpp dëpp na ci ne kéefar gu bon a bon la moo tax Ibnu Hajar al Haythami bi nga ko sax dafa wax ni ittihaadiya yi ñi nga xam ne dañoo jël ci dañoo jël zahir laf bi fi dee ko na leen neex ñoo ñooy ñi gën a yées benn loolay def bu te ko defee tàbbi ci kufru wala ayas bi te def benn mu daa koy taawil mu daa ne déedéet li yàlla wax ne kuntu samaakum man yàlla xam yàlla daa wax ne man maay nekk nopp yi muy déggee benn moom mu taawil ko benn mu ne yàlla lam bëgg wax leneen la waaye bokkut ak lafz bi ñaar yi nag ban la ci def dala gis ne bu njëkk bi du ko ndax bu njëkk moom xalatu ko boobu du ndax boo bàyyi ci kaw gi rek boobaa day boo bàyyi ci kaw gi comme ñoom niñ ko baaxoo def nga xam ne dañuy bañ tawil waaye léeg-léeg dañuy tawil léeg-léeg ñu tawil tawil yi métte métte métte sax tawil yi day waar ni ko ni ko ibnu Usaymin di defee zillullahi tawa taala ko tawil euh, léegi-léegi am ñoo xam ne dañuy woy bañ a fenqloo mooy tax duñ tawil dara ba sax dal yàlla am bu bëgg am am boobu ak tubay euh, muy muy mbir yu day war wal iyaazu billah Euh, ñaari nag ni ma ni ma ko waxee sànq man la ci waaj def waaj bi mu ci def mooy mooy mujj bi mooy lan da ko mooy da ko taawil nan la ko taawilee daay maanaam bu ñu koy taawil tànn tànnut ay baati boppam waaye da daa dem ci ibnu rajab nga xam ne ibnu rajab da ko daa def ay taawil yu dul mu ñëw ko daal loo mooy maana xadis bi kon da ko taawil bu ko taawilee nag lan mooy boobaa mooy am kon ak fenqaloo gu rëy rëy lam doon bañ tàbbi ci taawil gam doon wax naan képp ku ko wax Eh, maanaam tawet gëm doon bañ naan mi ngi jóge ci yahudi mu ngi jóge ci yahudi ak nasaraan yi tàbbi eh, na ca loolu nag ak finqaloo gu rëy rëy kon ñaar yi faaw mu nangu ci benn mooy mu bàyyi lafz bi ci zahir bi kon boobaa day mujj bokk ci al ittihaadiya te loolu wal iyaasu billaah ko ko yàlla bu mu ci bokk te lu ca bokk sax ci ci suñu rafet njort eh, wala kon bu boobu mënta nekk mu ñëw ci bii nga xam ne moo ci nekk mooy nga taawil ko mooy nga ne yàlla li mu wax ne kuntu samaahu alladi yasmau bihi yàlla jublu ci zahir bi kon boobaa def nga li ñuy wax sarfu lafdi an zahirihi euh, kon taawile ngay ma def te boobaa boo taawile da nga tàbbi ci da ngay tanaaku da nga tàbbi ci contradictoire ni nga tàbbi mooy yow yow da nga doon bañ taawile léegi tàbbi na ci mënut kon am man xëj bu jubut euh, li ñuy wax bëri pexe li si la daan wax ne bëri pexe yi nekk ci bidoo am am man xëj bu jubut rek xoolal borom mën xaj ba ci ay téeréem bul xeeb dara li muy li muy fas fii léegi mu léegi mu fekk ba pare moom day tàbbi jeeg seen xoro nan la firi xadis bi daa fekk ni ibnu rajab firi xadis bi mu dem firi ko noonu xoolal mu ne al awal mu ne xiyaalu hada alxadis nulaaxis amrayn hammayn من الأول أن معناه المعول عليه عند علماء المسلمين المحققين قاربة أنه ما تمتلأ القلب بعدمة الله تعالى محى ذلك من القلب كل ما سواه ولم يبقى للعبد شيء من حظ نفسه وهواه ولا إرادة له ولا إرادة له إلا ما يريد منه مولاه فحينئذ لا ينطق العبد إلا بذكره ولا يتحرك إلا بأمره فإن نطق بالله وإن سمع سمع بالله وإن نظر نظر بالله وإن بطش بطش بالله بطش به من فهذا هو المراد بقوله كنت سمعه الذي يسمع به ومن أشار إلى غير هذا فإنما يشير إلى الإلحاد والحلول والاتحاد والله ورسوله بريئان منه لي نك من كتب لي ابن رجب في جامع العلوم والحكم دان نك لي ابن رجب وخني نك موي معنى حديث بي ما نقول ابن رجب وخ ليب اي تاويل لا خولم آه، ابن رجب نينا حديث لي بغ وخ موي كيب كو خا جام يالا با ديم با سخول بفك ديلك ماك بروم تعالى ماك يال ماك سخول دي ديم با فار ليب لودول يالا ابن رجب نينا بوبا نك جام بي amut len lu mi amut len luy beug lu dul lu dul boromam maam ji maam cëru cëru bakkanam sax nga xam ne loo xam ne wàllu bakkanam bakkanam moo koy soxla lu mel ni bëgg doomi aadama bëgg ay soxna bëgg ay soxna wala bëgg leneen loo xam ne da koy bëgg wala xeeti lekk yooyu noonu jàmm ci jëmmam bakkanam ci jëmmam dootu amati benn cër li bakkanam loo doon laaj da koy xañ ndax lépp da koy jox yàlla bànni xam lépp da koy jox yàlla bal maa yàlla fii am na fenkaloo gu rëy rëy ndax wax ibnu rajab gi moom wéral na wax ibnu ba pare même wax ji moom la sahri waxoon mune ne lamuy la muy tekki mooy mooy li ñuy wax wahdatul wujub ak te fii saxal na ko ak fi nga gu reere wal iyaasu billah doonte lo yittelu mi yi euh mune ibnu rajab neena hadith xadi ibnu rajab mooy firi xadis bi xoolal tawil yi muy def tawil nag ayul ñun firuñ wi waye ci kim ay moy ki xana da buñ te wi tawil far di ci di ci tab bi ibnu rajab nee na jaam day dem ba nga xam ne amul leen lu muy bëgg lu dul yàlla bëgg ba bu boobaa nag fa xiina idin la yantiqul abdu illa bi boobaa nag jaam bi saa buy wax lépp li mu wax rek ak tudd yàlla bu dee bay wax rek bu dee ba yëngal làmb bi rek jàppale ak tudd yàlla lay wàcc benn day sàbbaay wala muy jàng alxuraan wala muy def dara bu dee ba yëngatu du yëngatu lu may ci tudd yàlla buy wax di tudd yàlla saa buy diglu maanaam ak tudd yàlla képp lay diglu xam nga loolu tawil yàlla li mu wax mooy boobaa man maay nekk ak ay noppam maay nekk ay ak déggam waaye Ibn Jami ne déedéet féewul loolu la wax mooy bu boobaa borom bi tabaraka wa taala boobaa jaam bi saa bu déggee maam jaam bu déggee rek saa buy diglu lu neex yàlla diglu maam yàlla wax jëmmam man man man sama jëmm maay nekk maam zahir lafz nekk nopp yi muy déggee Ibnu Rajab ñëw daal di wax ne rek boobaa li mu bëgg wax mooy jaam bi bu àggee foofu saa buy diglu lu neex yàlla diglu kon dafa dafa tawil lafz lafz bi zahir lafz la muy tekk mooy yàlla waaye moom da ko tawil lu neex yàlla loolu tawil nangu nañ ko waaye ci kuñ problème bi kay ci kii muy nekk problème mooy ki nga daa bañ tawil mooy Mouhamed Ahmed nga xam ne dañuy euh, li Ibn Rajab wax waaye saaxib bi tax daan ne dëgg la mooy maana hadis bi nga xam ne kon daa tawil daal tawil nag moom taxul ay baat foofu daal taxal wax Ibn Rajab daal di koy wéral daal ci noppi bu dee lii di asara wax ne kuntu basarahu li yusri biha man maay nekk bët yi kon nga xam ne bi de su ko lu lay waar la wax ne man maay nekk bët yi muy gisee li lii di asara wax ne man maay wax ne man maay nekk bët yi muy gisee ibn rajab nee na wa inna nazar bihi nee na saa jaam bi saa buy xool rek lu neex yàlla lay xool saxibu tax dana waaw dëgg la noon la nga xam ne kon daa fekk da woo tawil yàlla wax ne man maay nekk gëj yooyu nga ne déedéet man ma la mu bëgg wax mooy saa buy xo saa buy xool rek lu kon da nga tawil zahir lafzi bi al khaliq la yow tawil ko makhluq moy wa in batasa batasa bii bu dee li yàlla wax na man may nek man may nek ay loxom xam nga yàlla wax na man may nek ay loxom bu fekkone da da daa doxee bam fason moy façon mooy bañ a tawil comme waaye dama waa zahir bi la tekki moy kon yàlla mooy nek loxo yi kon ke bépp walu dana sama loxo yi mooy yàlla to ba xam na ne kufur la kon faaw mu tawil ko moy lan lu wax man may nek la manam saa bu ngëpp maam lu neex yàlla maam lu xëy foo ko fekk ci lu neex yàlla lay lay ji ab kaamil wala dara maam non la ko ibn non non non la ko ibn Rajab tawil juróomi tawil yoo xam ne saaxi bi tax yi tawil yii nag mooy dëgg mooy maanaa xadis bi ndax ni mu tàmbali dafa wax ni awalan anna maanaahu almuawal inda ulama muslimin ibn Rajab daan ne wa man ashaara ila gayri hada fa innama yushiru illa falawla ittihad والله ورسوله بريان منه كيف كوخ لنا لدو لي رك اب اتحادي ولا حلولي وحلولي نعم نكون لم دون بان تي ناي تاويل فاسد دي واخنا كي يهود لا جوي في نتابنا تي موي تاويل كون لولو مي تيكي اك فين خلو غري ري موي واخنا تاويل مي جوغي تي يهود نصران نيك جهميه يي با بار يو حديث دي مونتا نياك تاويل غاي تاويل كون انا تاويل غا غا واخ دا جوغي جهميه يي لا غا دون واخني تاويل موي bi bidaa bu xew rek tawil moo ko waral fii fii tàbbi na ci ndax def na juróom juróom-ñaar tawil ni mu ko defee nag moom technique la mooy indiwul ay baat yi boppam waaye daal nee na baat yi ma soxal nii moom mooy maana xadis moom d'accord mooy maana xadis bi kon nangu na tawil juróomi tawil moom nangu na ko la kon loolu li muy tekki mooy lan mooy fenqaloo bu rëy rëy rëy mooy ab manhaj boo xam ne ay qaayida boo xam ne du qaayida mutarida wala manhaj boo xam ne xëy na jubut Eh, sukkandiku ci alxuraan wala sunna manhaj boobu noonu fu mu saxee rek nga gis mu fecc ko moo tax ci buntu tawil ñoom ñëpp ñoom seen mata dañ fa dañ def ay ittirabaat ak ay yoo xam ne kenn xamul nu mu toll rek yàlla rek moo xam eh, yàlla rek moo xam ñu def nga xam ne kenn xamul nu mu loolu mbokk yi lañ ci bëgg a jàngat mooy eh, xadis bi ci jëmmam di xadise wali firi firi guñ ko danañ ko firi bu soobee yàlla maam la ci gën a yéeme nag mooy wàllu bi yàlla wax ne euh, nit ki bu nekkee wàllu ba àgg ci daraja bi man may nekk nopp yi muy déggee di nopp tànk yi muy doxee ak ay loxoom ñoom li ci gën a yéeme ñenn ci ñoom dañ ne maam dañu jël wàllu bi askanale ko euh, askanale ko Cheikhul Islam Taymiyya ak Muhammad Abdul Wahhab ñi nga xam ne ñooy suuf yooyu ñoom ñooy ñoom ñoom ñooy noonoo wàllu xam nga li yàlla wax ne man aadaali wàllu faqad adantuhu bi harb képp ku noonu sama wàllu am na ñe ci ñoom ñoom arriyaw tarfiya ku demee ni ibnu ibnu ibnu jabrin abdurahman abdullah bin abdurahman jabrin ci sahih arbain da wax ni euh, ñi nga xam ne ñooy wàllu yàlla mooy cheikh islam taymiya ak ibnu qayim ak muhammad abdul wahab ñi nga xam ne ñoo leen noonoo ñooy sufiyank yi nga xam ne ñoo leen ñoo leen wax yenn wax yi neen nañ moytu muy doy waar nga xam ne buñ mënta ñàkk dañ koy jëmale seen bopp léeg-léeg sax ñu ne bu taxtoon aljaamiu lool donte nag jéem nañ ay jéem ngir daan xadis bi ci yoon woo xam ne ku ñu wax abi maxlabat donte mënuñ ko sax ñu mujj def ay tawilaat euh, kon loolu mooy tekki rek kon waa ji daa fénqaloo fénqaloo gu rëy rëy mooy tawil gam doon wax ne daa jóge ci nasaraan yi sàbbi na ci ndax faaw mu tàbb ji bu ci tàbb du baax tàbb ji rek lay mën faaw mu tàbb ci kon euh, mu des nag léegi ndax ñu ko tawilee dañ ko koy nangu dañ ko nangu kay ah, effectivement ndax kenn du ko bàyyi ci zahir boo ko bàyyi ci zahir bi boobaa ak kufur lay doon مورخ ابن حجر الهيثمي رحمه الله في الفتح المبين باسيسة ديري وحنا وزعم الاتحادية والحلولية بقى هذا الكلام على حقيقته وأنه تعالى عين عبده أو حال فيه ضلال وكفر إجماعا تأبسوا فيما يحل فاحذرهم فإنهم ربما لبسوا على ضعفاء العقول فاستهوهم وأضلوهم لتزييهم بزي الصوفية والصوفية بريئون منهم فقاتلهم الله أن يؤفقون nee nañ kuréel bi nga xam ne al ittihaad yi wal xululiya te ku yi dañuy tuub ahlu Égypte nee na bi nga xam al ittihaad yi al xululiya wax ne xadis bi dañ ko bàyyi ci zahir bi dañ ko bàyyi ci xaqiqa bi ne jëmmi yàlla carrément mooy jëmmi nopp nappab jaam bi mooy jëmmi tànk jaam bi nee na lii ak kéefar la kon lii tawil bi kenn terewu ko waaye problème bi mo problème bi mooy moom ki tawil tawil bi maam da mën xajam nangu tawil bal mën xajam li mu wax moom si jëmam la mu waxal boppam mooy la euh, mooy tawil daa jóge tawil daa jóge ci nasaraan yi mi ngi jóge ci yahudi ak nasaraan yi ñëw ñëw ci kii kon ci gàttal xadis bi yëpp ay majaasaat la kuntu samaahu wala yooyu yëpp ay majaasaat la moo tax alxaysami day wax ne wa taxqiq annahu majaasun wa kinaaya majaas la ni ko ibnu daqiq al iid di waxe ci sarxul arbain kon foofu li ñu bëgg a leeral mooy waa ji daa fénqulu daa tanaaxut tanaaxut gu métti tanaaxut gu day waar boo ko defee nag xadis bi li muy wudd ak li mu fee ak li muy tëftale ak moom ni mu ko déggee ak fi mu ko iqtisaar Euh, ak yemu toxal ci lan mooy wal yi ak bunt bi ubba jagleel ko jagleel ko ne ahlul tasawuf noonu la gisee alwal yi ak mboolem xeet yam ci teg yëpp yooyu yeneen jotaay ak jàmm bu yàlla dogalee ab dajewaat bu sooy borom taala foofu lañ koy leerlee waaye lii moo ne ko jotaay tey bi waxaatul qadri kifaya wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kasira mbokk mi gannaaw bi nga seetaane vidéo bi ba pare ñu ngi lay ñaan nga bës fii ñu bind jëm bu fekkee gande si chaîne bi nag bësal après nga activer cloche bii nii mën nga tamit wax sa xalaat yii nii si commentaire yi lii nag ci fay dara te dina tax video buñ dugalati di jot jangin ngeen